di yàlla suñu borom di ko naan merci beaucoup ak euh, lum ñu may nii effort physique yu ñu doon euh, tenir ci terrain bi may ñu ñu def tey lu ñu def nii yëpp ñoo ngi gërëm daal détermination bi mooy euh, dañu gëmoon ni mën nañ dem ba final andi bi loolu lañ njëkk kii objectif bi c'était le mondial ñu atteindre ko léegi nag euh, c'était juste ñi ne foog ñu jël euh, final coupe d'Afrique bi loolu lañ bëggoon ko te incha allah dinañ ko jël bu soobee yàlla match bi daal ñu ngi koy waajal comme ni ñu tamee waajal yeneen match yëpp te xam naa ni du yomb quoi ak seen public bi seen dëkk en plus dina métti trop mais dinañu jël ndam li incha allah seen kaw quoi peuple bi daal. di leen naan merci un grand merci ñoom yëpp si ñaani lu ñuy pousser pour euh, ñu jëm kanam quoi merci.